di jiital si nuyoo boobu Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan borom subhanahu wa taala yàggal ko fi lool te muy ko wér di ñaanal sunu sëriñ Cheikh Abdou Samad ca bërëb yu sell yooyu mu nekk di fa liggéeyal yàlla ak yonent bi ak Cheikhul Xadim ci ndigalal kilifaam Mawlana Mouhamadul Muntaqa yal na ko yàlla nangul te yàlla dellu si fekk ñu ci jàmm tey nag. ci bis bu tedd bii di bisu tabaski nga xam ne mooy bis bi gën a màgg fi bis yi ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay njàngalinam nga xam ne mooy bis bi nga xamee ne am lu muy symboliser ci lislaam am lu muy symboliser ci la ko jiitu jaam bu nangoo topp yàlla te nangoo koo sellal mooy seen ma Ibrahima alayhi salaam nga xam ne moom la la joxoon ndigal ne ko na rend doomam mu nangoo def ndigal loola yàlla jotee doom ja am xar loole mooy sunna yonent yàlla ibrahima alayhi salaam yàlla digal yonent bi mu dekkal ko digal ko xeeb bi bis bi na nekk bis bu mag sëriñ bi nag di ci yónnee ay message bokk nañu message yooyee ñu xam ne kon jaam bi dafa war a sellal digganteem ak boroom te wéetal yàlla subhanahu wa taala ci mbir bu mën a doon nga xam ne boroom bi nga xam ne moo ko bind moom képp lees war a jaamu ndaxte jaamu gi mooy li am njëriñ te ñàkk gaa jaamu ca loolu di bàyyi ko ñaareelu message bi te sëriñ bi digle woon ne nañu ko wax te moom ci boppam waxal ko boppam ba mu nekkee ca Arafa muy message su jàmm ak cofeel boo xam ne dafa war ci ñun jullit ñëpp ñun ñun yi suñu réew mii di nekk nag di réewum Sénégal yàlla da ko defal ay xéewal xéewal yu rëy rëy xéewal yooyu yëpp bokk nañu ba ci gën a rëy mooy suñu borom subhanahu wa taala defal gi mel ni Mawlana Cheikh Al Khadim mu feeñee fii ci dëkk bi di doomi dëkk bi liggéey fii ci dëkk boo xam ne bu yëpp teg bët xéewal gu rëy googu na moom la ñu am mu Cheikhul Khadim ñu war koo fonk lool te topp ko kon dafa war ci ñun loolu ñu ñu bëggante suñu biir jàmm ndaxte jàmm su amul su boobaa la Cheikhul Khadim bëggoon muy lislaam tasaaroo du mën a am ndax sëriñ bi moo wax ci boppam daal di jàmm ku bëgg da nga koy yéene di ko wax di ko jëf te taxaw moom di nuyu waqul ba wala zim taslimi mukarraman rubil wala bi kalim yi ñetteelu message bi mooy message bu ñaan ak bëggal mboolem jullit ñi aw yiw Cheikh Abdou Samad ca Arafa foofee mu nekk gis nañu fa ñaan yi mu ñaanal mboolem jullit ñi ñaanal leen borom subhanahu wa taala baax ci ñoom tey ak ëllëg ñaan yooyu mu fa ñaan ci bërëb boobu bi gën a sell ci kaw suuf ci taxawaay boobu nga xam ne mooy taxawaay bu gën a sell nga xam ne bu ñu fa taxawee suñu borom subhanahu wa taala dafay def tajalli comme ni ko waxee ci xadiisam dafay feeñ wax malaaka yi daan ne sama jaam ñee taxaw fee du ñu bëgg ñu ko bëgg mooy nga jëggal leen yàlla naa leen kon ñaan yooyu fa Cheikh Abdou ñaan ñaan yooyee yàlla na ko yàlla nangu nettal ba ci ñu xam ne sëriñ bi foofee mu dem ko fu yóbbu kilifaam Mawlana al Khalifa Cheikh Mahmoudul moo ko yabal ne ko na dem teewal fa mboolem tariqa bi te def teewal fa mboolem murid bi ba mu fa demee nag teewal fa sëriñ bi te na mu ko war a teewalee waaye ku ne xam ne ne moom doomi daara la baayam di doomi daara ay maam di doomi daara kon moom lépp lu muy def rek alquran ak jëmale kan alquran mu ko tax a jóg moo tax ba mu amee occasion ci waxtaan ak njiitu réew bi ci ay doomi daara yoo xam ne dañ leen tegoon loxo ci xëy na lu ñu defoon. te ku ne xam ne ne bis bi ñu nekk bisum njëggal la te am na lu ci njiitu réew mi di def mu di tuddee grâce mu ñaan ko ne ko kat man dama bëgg nga may ma doomi daara yooyu nga xam ne dañ leen tegoon loxo dañ toll ci ñaar fukk ak ñeent ñu baal leen ci baal gi nga xam ne ci njiitu réew mi di baalaate loolu ko ko defee ba mu ko njiitu réew mi may na ko mu baal lu toll ak ñaar fukk ak ñaar ca ñooña mu def ñaar xëy na ñaar ñooñu la ñu def dafa jéggi dayoo xëy na moo tax boolewul leen ci kon loolee dafay nekk ndam loo xam ne sëriñ bi am na ko ci jëfe googu mu digg jëfe digalal kilifaam Cheikh Mamadou Mountakha ba tax ñoo ña nga xam ne yoon tegoon na leen loxo tey ñu am ak njëggal goo xam ne bàyyi ko na ci njiitu réew mi ñu mën a dellu tey ci seeni njaboot fee def bis bii nga xam ne bi bisu tabaski la ca toppaat mooy dëkk bii Touba ba si weesu dégg nañu Cheikh Mamadou Mountakha mu wax wax ju rëy ci bis ci dëkk bi loolu yàgg nañ ko wax ci bërëb bu teel bi ñu nekk ñu xam ne dëkk bii Cheikhul Khadim bi mu koy sanc yàlla ñaar rek ko taxoon a jug mooy jaamu yàlla ak di fi liggéey lu lew loo xam ne nii dana ci mën a sukkandiku ko jaamu yàlla mu wax mu wax moom ci boppam ni Daaru Salaam ak Touba li tax ma gën leen a bëgg mooy xuloosu niyyat yi fii binaa'ihima yéene ju sell ju ma am ci sanc ko moo tax ma bëgg leen dëkk bii nag sëriñ ñu moom ko ni ñu war a moomee ab dëkk bu dee ci lislaam dañu mën moom ab dëkk mooy gor moo ko gor su dee ci suñu bi suñu looy état yii dañu mën a moomee ab dëkk mooy kii titre moom dëkk bi sëriñ bi nag moom moom dëkk bi te li ñu fa bëgg mooy ñu fay jaamu yàlla ak di fi liggéey lu dëppoo lislaam ngir mën a cee sukkandiku ba jaamu yàlla Cheikh Mamadou Mountakha wane waat na ci jamono yi weesu ne dëkk bi kat war naa mën a jóge fii mu nekk ak ci li ñuy tuddee statut spécial mooy mu am autonomie boppam mbir ci li nga xamee ne noonu la ñuy doxalee ci dëkk yu moderne message boobu nag message la bu foor boo xam ne képp ku di murit war nga koo bàyyi xel bu baax tey jox jëm ca loolee ndax ñu xam ne da nga xamee ne am nañ ay statut spécial ci seen dëkk gënuñ ko yooyee Cheikhul Khadim bu fekkee ne Cheikhul Khadim gën leen ko yooyu kon loolu murit yu nekk war nañ ca bàyyi xel bu baax te jox ca la ca toppaat mujj ca mooy nga xam ne ñu ngi dugg ci am nawet ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala yàlla may ñu ne barkeel nawet boo xam ne nii lépp luñ ci ji dana meññi te su meññee danañ ko jëriñoo réew mi dana ko jëriñoo imanata dana ko jëriñoo kon message yooyu moom message yi nga xamee ne moom la sëriñ bi waxoon na bu ñu sa dajee ñu fàttali konte ak mbokk yi waaye dama insisté bu baax ci ne cofeel dafa war a sax ci suñu diggante ak bëggante ndaxte loolu ndigalul yàlla la alquranul karim ndigalul yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam moom mi wax ne kenn ci gëm li feeg bëggalul boppam li bëggal ay bokk jullitam diggalul Cheikhul Khadim ne moom wax ne wa axrina bi xubbihim wajhika wa axrihim bi xubbina fanasluka kon diggal yooyu yëpp nag dafa war a tax ak cofeel am suñ diggante kon yàlla ñu ko keewal ay diwén yu bare bari te yàlla yàggal fi Mawlana Mouhamadul Muntaqa ba naalim naal yëpp ci liggéeyal diine ak liggéeyal ko maamu Cheikhul Khadim àggale ko na ko bëggee yàggal fi Mawlana Cheikh Ahmadou Mbacké Chouaïbou kër gi yàggal fi tamit sëriñ sëriñ Cheikh Abdou Samad ak mboolem njaboot gi yu yàgg taxawu diine yàgg a taxawu lislaam ji ndax loolu mooy mission yi maam yi ak mission yi baay yi te ñoom loolu rek mooy seen yitte ci loolu ci la ñu sax yàlla nañu ko yàlla defal kulla aamin wa antum bi xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu